jërëjëf Cheikh Mouhamadou Bachir daanaka jërëtuloon ma di ca ci dolli benn kàddu ndax kàddu gi matal na lépp loolu sëkk dafa fekk na rek dellu dellu gannaaw tuuti man la dana ci baax loolu fan koy tàmbalee rek mooy Cheikh Abdou Lahad eh, liggéey bu bii eh, eh, lépp gannaaw Sëriñ Tuubaa kenn jiituwu ko ca li ci am moo di Cheikh Abdoul Ahad da a jóg rek mu gis leen xam ne sëriñ bi moo mu ngi ci yéen kon ma ma des naa wax ne Cheikh Abdoul moo feeñal sëriñ bi ci yéen daf leen a gis rek xam ne sëñ bi sëñ sëñ bi rek moo ne ci yéen mu jug yéen jëpp itam jëpp muy taxawal leen bu ngeen mën a sóobu sax dàkk ci liggéey sëñ Tuubaa te yàlla tax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 saafiliin foofu la tibbe tuuri woowu ndax suñu borom moo waxal boppam bind na nit na mu gën a jekkee na mu gën a rafete waaye coobarem dool delloo ko it ba mu gën a suufee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 yéeg yéeg yéegi yéegi ni ko suñu borom waxee rek mu gàttal ci gàttal ni mu ko defe rek moom mu ñëw tudd leen tur woowu xam ne jëlee na ngeen suufee waaye dafa bëgg ngeen di jëm kaw mooy Hizbut Tarqiyyah mooy kuréel lu yéegi loolu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 ni mu noppaloo jee loolu ma ne su ko ñàkk a fàttali ndax yàlla def la loo xam ne eh, lépp tawfeex sëriñ bi la kon wax ji eh, dafa mënut a ñàkk waaye mëtatu ko waaw ndax yéen jëf juy taxaw ngeen loolu wax wax aju aju ajootuñ ci wax ndax jëf ju jëf ju taxaw ngeen loo xam ne pàggu tëf sëñ Tuubaa muy taxawaay boo xam ne itam nag diggante sëriñ bi ak boroomam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 du daa tënk bi daa lul ngeen gën a góorgóorlu baax a baax a baax a baax a a baax gën a yëlbu ba dara du leen gàllankoor da ngeen yëlbu ba dara du leen gàllankoor dëgg dëgëraatal seen taxawaay bu baax ci seen tànk ci ci kaw ngeen ngeen dëgëraatal seen seen i bu baax a baax a baax a baax fas yéene déwén kenn ku ne ci yéen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 noo ngi leen noo noo ngi noo noo leen noo leen noo ngi leen sant sëriñ wi gën a sant sëriñ wi ndax lépp mooma lépp mooma kon sant rekk nu war sant rekk nu war te sant gi duñ xam nun koy defe sant gi mën noo xam nun koy defee ndax mën nu koo sant Cheikh Mamadou si wax na ko léegi xese bi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 koo xam ne da nattu ak njabootam ba xam yow yow nañu wala yowuñu jox leen ak fetal leen diir leen ku ko jox nga diir loo gis nga gis naa nangam gis naa nangam ba mu agsi ci ka nga xam ne da ko ne gisuma dara loolu li ma diir mu ne loolu laa doon wut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 xam ne sëñ sëñ tubaa ngi ngi sa xol maa ngi ñaan ci baaxu sëñ tubaa lii ngeen am muy tawfeex sëñ tubaa ju sell ju wér maa ngi ñaan ku nekk taalibe yàlla def ko ci yow noonu dong dong dong dong la yoon waa ngoog waaw waa ngoog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 kon nag yoon waa ngoog yoon waa ngoog yàlla nañu suñu gën gën a gàttandoog gën a gën a gën a gàttandoog tawfeex Sëñ Tuubaa kon nag yoon waa ngoog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 sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax ci jéego yi ngeen jéggi ak jataay bi jataay bu yàgg bii ngeen toog ñu ngi leen sant gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw gën a gàttal ak tawfeex sëñ Tuubaa ci suñu biir ak suñu bitti mbir yépp yàlla noonu gën a gàttal ak kon dafa mel ne tawfeex sëñ Tuubaa rek am solo dafa mel ne tawfeex sëñ Tuubaa dong nga am solo ah kon nag moom lu ñu def nan ñaan rek nan sax dàkk ñaan man sax lu ñaan rek yàlla na suñu borom gën a dolli dool suñu dox sëñ Tuubaa loolu rek la loolu rek la loolu rek la kon nag saxam saxal mooy tërbiye ak tarxiye ak tasfiya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 naa ñu na ñëpp toog ah, na ñëpp toog na ñëpp àgg suuf ba sëñ bi jóg na ñëpp toog